waaw léegi nag man li ma xaw a jaaxal par rapport ak situation mooy maanaam réaction yenn ci sénégalais yi ak réaction yenn ci médias yi quoi xam nga parce que tamit benn instant man pour man xam nga le président de la république c'est le président de la république quoi. donte moom bi muy jël mesures yi ay vingtaine de cas amoon ñu dem ba am ay 1000 xam nga mu delluwaat ginnaaw ci ci ci mesures yi comprendre nga mais man li ma si jote jàng mooy. daanaka am na askan bi ñoo xamante ne peut-être mesure yi ñu jël xam nañ ne lii nii du jàll quoi yii nii mënul dem xam nga ñu wax ne carrément ne affaire yi mënul dem kaas ko comprendre li mu la wax ba président de la république dellu si ginnaaw kon tey bu ñu demee bay def ay titre journal wala ñuy dem di expliquer si affaire boobu xam nga le président de la république a fui le président de la république a lii a lii loolu xam nga pour man yooyu xam nga ay affaire yoo xamante ne yuy yee fitna la quoi xam nga parce que tamit kilifa bu mu munti doon nit la rek xam nga mun nga juum comme mun nga bañ a def sa liggéey normalement mais yow sa askan bu ñu demee ba nga xamante ne ñoom jóg nañ taxaw ne la yow li ngay def nii teguloo ko fenn c'est pas normal ngay demee nii comprendre mu la suñu demee wax la c'est pas normal nga demee nii nga am nopp boo leen dégloo ba mën a delluwaat ginnaaw par rapport ak situation bi comprendre c'est-à-dire dañ ko war a rafetlu ko donte du dàqonteeg tamit xam nga am na ci ay point yoo xamante ne moom xam nga bàyyi na mu jàll quoi yoo xamante ne bon ba tey askan bi ànduñu si te compre mënuñu comprendre lan moo tax jékki-jékki rek xam nga euh, euh, bàyyi décision yooyu noonu quoi en tant que institution présidentielle fekkante ni askan wi lu muy lu muy lu muy lu mu lu mu réagir lu manifester moo tax moom mu def deux pas en askan bi yàgg na ko réagir par rapport à plein d'autres choses ci pétrole bi ci six mille milliards plein d'autres choses est-ce que dafa am def pas en man gisee moo foofu lu may gis mooy dafa jëloon plutôt ay posé woon ay actes yi nga xamante ni defu ko s'attaquer au président par rapport à ses décisions dafa jël ay décisions yoo xamante ni matalu ko léegi. la moo xew par rapport ak li mu décision yi mu jëloon te matalu ko loolu moo indi population bi réactionné. en ce qui concerne les décisions. yaa dégg parce que décision bi nga xamante ne dañ ko jëloon ñu ne dañuy tëj les marchés les lundis les mercredis et les vendredis. Euh, ñu ne léegi ñu loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay denrées alimentaires ñoom ñooy ñoom ñooy ubbi lundi mercredi vendredi ñi nga xamante ne dañuy jaay autres produits ñoom ñoo doon tijji les mardis. e les jeudis donc le samedi et le dimanche ñoom moo nekk benn kii boo xamante ne pour désinfection la donc décision boobu noonu c'est pas c'est pas c'est pas c'est une décision immune euh, boo xamante ni c'est le président de la république moom moo ko jël loolu noonu arrêté boo xamante ne ni la le préfet moom moo ko jël parce que préfet am na am na am na am na am na am na autorité boobu noonu jël ay décision yoo xamante ne ni da koy imposer ci territoire bi nga xamante ne moom la nekk donc bu ko neexee mu bañ a aviser sax le président de la république donc dans ce cas da xam ne ne DG boo arrêté boobu noonu arrêté boo xamante ne préfet de Dakar moom moo ko jël loolu concerné wul woon sax pratiquement tous les régions comprendre nga léegi bu ñu foofu noonu le président de la république si ay déggum la après après l'arrêté du du du préfet donc lui xam nga le président de la république moom am na possibilité si ay déggum la comme ni mu defee nii def ay déclaration déclaration yi nag mun na nekk en contradiction avec arrêté bi nga xamante ne moom la jël mais li nga xamante ne moom moo gën a am sens dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy les tenants et les aboutissants ci discours am bi parce que boo xoolee comme li ngeen wax sànq am na ay décision yoo xamante ne ni ba feebar bi demee ba nga xamante ne ni 27 euh, cas lañ amoon le début mu jël ay décision comprendre nga tëj juma kii transport yeeg xam nga mu des les décisions daal ñun ñëpp xam nañ décisions yi nu mu demee ñu ñëw ba ba barkaati démb si ay déggul la mu defaat beneen déclaration boo xamante ne ni moom dafay adoucir les les les mesures donc man sama point de vue personnel parce que ku nekk ni ngay xalaatee na ngay xalaatee man sama point de vue personnel man am na yoo xamante ne dama si d'accord parce que fi ñu toll nii dafa am benn mot bu am boo xamante ne ni tamit gars yi foog ñu bàyyi ko xel moom mooy il faut apprendre à vivre avec le virus te pratiquement ñun foofu lañ toll parce que mesures yi mënuñu continuer à chaque instant xam nga ñuy privé nit ñi yenn yenn yenn liberté yi ñuy privé ndax lan ndax virus bi d'accord au début mun nañ ne mun nañ ko def parce que au début ñun xam amuñu benn connaissance presque pratiquement ci virus bi comprendre nga léegi mais instant yi ni fu ñu dem ba nga xamante ne toll nañ fi instant yi déggum la bu ñu continuer di dundee noonu instant yi déggum la waxuma la bi kese mais ñun ku nekk ñi nga ne dañoo amoon li nga xamante ne ni sax amoon nañ mun nañ la wax ñooy dañ doon vivre aisément instant yi dégg ñoom sax dañuy dinañ am problème sàkkamtuma laa ñun ñi nga xamante ne ni dañuy dañuy pauvre ki la doon dimbali sax dootu la dimbali donc fi ñu toll nii benn affaire moom moo mooy il faut apprendre à vivre avec le virus mais comment mais comme nii mais il faut il faut continuer à respecter les mesures barrières dund ko li ma leen doon wax chaque nga nit boo ko jàppee ni am virus bi donc dans ce cas yow tu yow doo exposé wu xam le virus avec le virus sans pour autant essayé ay déggum la yenn yi nga koy sóoraale man si yu ma d'accordul moom mooy bi ma waxoon émission émission émission précédente bi premier bi ma xam moom mooy ban moom mooy ouverture des écoles loolu moom c'est scandaleux man je ne peux pas comprendre situation yi fu mu toll nii amul benn benn benn ak gouvernement bi accompagnement bu ñu mun ti def ak élèves yi étudiants yi la loolu dafa garaaw parce que munul nekk munoo ñëw exposé ay ale ay xale yoo xamante ne ni isient déggul la sem 2 la ñuy def ñoo xamante ne ni ay seen âge demeewul noonu yow nga ne leen yow da nga leen di contrôler en dehors ba pare contrôler ci biir ci biir classe bi loolu c'est impossible raison pour laquelle gis nga décision boobu noonu même les professeurs et les élèves amul kenn koo xamante ne dañ ci daf ci d'accord parce que loolu du décision boo xamante ne ni dañ ko war a teg loolu daal moo nekk décision phare boo xamante ne ni man je suis pas du mais en ce qui décision boobu noonu ñun ñoo taxawoon fii jour jour yi passé di ko di ko di ko di ko di ko wax mais ñun lan bañ ko doon wax lan lañ si jublu comme li li dal jumaa yu bëri boo demee ba nga xamante ne mesures yi nga xamante ne moom moo war a accompagner jumaa yi mu amoo ko munoo ko mais boo nga tëj mais loolu la rek. boo xamante ne discours bi dafa lu mu bon ma dama ne dafa am pression moo tax discours bi discours bi ñëw ndaxte moom xalaatutoon sax ne moom discours war na def discours le 11 mai. ndaxte déjà dafa am ay précédents yoo xamante ne am na ci kii bi sa soo ne mënoo nous sommes en guerre ba pare euh, yow nga bëgg a yow confiné di déconfiné <laughs> ah day indi ay problèmes yoo xamante ne ñun mënuñ koo accepter yow déjà feebar baa ngi nga ne il faut apprendre à vivre avec avec le virus déjà ñun amuñ moyen pour mun a dund ak virus bi yow nga bëgg dund ak virus bi pendant euh, pendant mois d'août wala mois de septembre day jii day causer problème. moom dafa déplacer rek euh, résoudre le problème bi. ñoom ils ont de vivre avec le virus yow mi nga xamante ne da nga ne amoo les moyens de vivre avec le virus yow ñee nan la ñuy dundee virus bi yow noo noo ko mënul dundee yow. kon sa kii bi sa question bi nga posé ma damay répondre en terme ci discours mm, président Macky Sall discours bu ma man nu ma du ma ko jàngatee. man nu ma jàngatee am na yenn yenn yenn quatre pression yoo xamante ne moom moo tax discours bi discours bi nekk. mooy am na am na pression boo xamante ne dafa jóge ci population bi population bi ñoom ñoo fipp ne am yenn yoo xamante ne yenn restriction yoo xamante ne ñun mënuñ ko accepter mun mënuñ ñoo mënuñ ñoo jox liberté ba pare ñu nekk ci état d'urgence ñun xamuñ lu liberté ndaxte Sénégal par exemple ci histoire am euh, lu ma yaakaar am na trois trois situations yoo xamante ne moom moo ko poussé woon mu def état d'urgence te yooyu yëpp ay cas situation politique moom moo taxoon mu am mais tey jii nii dafa am benn problème boo xamante ne moom moo taxaw mais moom mooy moom mooy maladie bi coronavirus bi moom moo tax gars yi commencé di def état d'urgence léegi population bi habité wuñ ci léegi léegi day too day am benn benn benn mbir boo xamante ne day déclenché maanaam dañoo bugg suñu liberté dañoo bugg génn dañoo bugg dañoo bugg firi dañoo bugg def lu ñu doon def lu ñu doon dundee ñu dundee ko te léegi boobu état bés bu ko bés bu ko rompee day am benn frustration nekk ba mooy frustration bu jógee ci population bi am na beneen frustration boo xamante ne ni moom mooy sont les chefs religieux ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo pousse ne ñoom pour ñu ubbi jumaa yi yi ñoom ils sont ñoom jumaa rek lañ xam ñoom jaamu yàlla rek lañ xam ñoom si euh, seen dund yëpp ci ci jaamu yàlla lañ ko lañ ko tëralee soo demee bu benn instant nga jël décision boo xamante ne yow ba nga koy def euh, consulté woo leen waxtaan ak ñoom amoo euh, amoo amoo seen amoo seen xalaat amoo seen gis-gis ba pare nga tëj jumaa yi loolu day poser problème pour ñoom ñu mun ko accepter day poser problème par conséquent ñoom tamit day am benn benn frustration boo xamante ne ñoom dañ koy dégager. mu am beneen beneen frustration boo xamante ne beneen euh, beneen euh, situation boo xamante ne dafa présenté wo mooy les entreprises les entreprises françaises qui sont ici au Sénégal. d'après l'ambassadeur l'ambassadeur de la France ba mu defee dernier ne sortie bi nii dafa génnee ne mu ne moom il y cent cinquante entreprises yoo xamante ne français la ñoom ñoo nekk fii nii au Sénégal yoo xamante ne seen intérêt fii la nekk fii la fii lañuy ñuy fii la ñuy fii la ñuy amee seen euh, fii la ñuy defee seen bénéfice fii la seen chiffre d'affaires fii lañ ko amee lu ci des ñu rapatrier ko rapatrier ko seen dëkk pression boobu tamit ñoom tamit euh, comme que ñoom def nañ ko déconfinement ñoom tamit ils sont obligés les entreprises yoo xamante ne ñoom ñooy nourrir économie France ñoom leen ñu leen faciliter ñu mun a def comme ni ñu doon def par conséquent yow nag day am ay précédent mais nag yooyu précédent yooyu ñun mënuñ koo comprendre c'est le a jël moom moo war a jël kii wax na ne ñun ñi am na pression yu taxaw moom moo tax ma def lii d' accord yow yaa pression yi moom moo tax nga def lii te yow feebar baa nga nii yow feebar mënoo mënoo ci def dara amul dara loo xamante ne teg nga ci loxo yi loxo yi sénégalais pour ñu moom ñu mun cee génn ba pare tey jii nga bugg a déconfiner population yi maanaam ubbi ubbi frontière ubbi barrière yi nit ñu mën a jóge fu nekk di dem ab na cinq départements yoo xamante ne ni ñoo nekk Sénégal 22 22 départements yoo xamante ne ñoom amuñ coronavirus léegi soo bi nga defoo déconfiné gars yi nga may la ñu dem di ñëw il y de 22 yoo xamante ils sont forcés ils sont am ay ay cas ay cas de cas communautaire wala ay cas yoo xamante cas euh, cas ci seen maladie su su boobaa day poser problème am na yenn yoo xamante ne balaa nga koy def balaa nga jël yenn mesure da xam ne ne dangay am yenn euh, benn benn prolongement yow yaa ngi am ay mille et quelques cas nga bëgg a def ay benn déconfinement boo xamante ne day déconfinement man dama yaakaar ne su ko defee dafa am pression moo tax mu def ko su desee su jëlee décision su euh, waxee na day waxtaan benn discours boo xamante ne day bàyyi lépp c'est moom moom moom problème bi da koo déplacé mais résoudre le problème bi par conséquent il est temps nag par instant fu toll nii nii ñu xool nan la ñu nan la ñu doxalee mesure yi mu jël baax na wala baaxul jël na ko. état ba mu ne PRIP ba mu ne PRIP dafa waroon accompagner gars yi accompagnement moo yàgg problème bu gën a mag moom la El Hadj bi baax moom la doon wax ne la ba mu war a génnee pour dimbali gars yi dafa yàgg nga ma noonu. en de pilotage léegi léegi ba mu nekkee ba pression amee nu mu def nga ne pression la ba pression amee démb lu mu def génn lu 11 xoolal mardi la waxoon ma angay ah, la nga wax da nga ne non non dafa am comité de pilotage ñooñu lañu war laaj dañoo war a topp benn circuit mën la amul ay circuit affaire yi xam yaa ngi wax léegi nga discours waajal ko kan la waxoon mardi la waxoon daf ne mardi ñu waxoon discours bi ñu xëyaat ne lundi parce que pression bi la gis nga tey ñun ñii ñëpp ay doomu aadama lañ avant coronavirus di am daan nañu feebar quoi da ngay dox ba jékki-jékki daanu te ñu jël la fi nga daanu yóbbu la hôpital laaj la xaalis comprendre mu la bëgg faj la tant que yow médecin bi la war a génnee gé ërëm jotul ah doo génn say mbokk ñoo ñëw fay comprendre li mu la bëgg moment boobu doo fi nekk naan ay état bi moment bi ma jël di tëddaloo ma hôpital di ma faj daa war a jox sama njaboot lu ñu dundee wala kërëb kërëb jàppal bàyyi xam nga yooyu ay affaires yu naturel la yoo xamante ne dafa yàgg am si àdduna bi comprendre mu la ay bañ ma fajee ba ma ñëw joxuñu ma paas ma ñibbi fu ma jóge affaire yooyu dugg na fii génn fii te en temps normal ba nga feebaree yow yaay paasal sa bopp ñëw yow yaay paasal sa bopp dem comprendre nga du yow kese yaa feebar ñu xam ne début bi li état bi mënoon début bi mënatu ko parce que début bi ay vingtaine de cas lañ doon wax comprendre bu ñu demee ba yegg si ay 1000 cas ak gars yi nga xamante ne dañ leen mettre en quarantaine xam nga déjà yow déjà ñoo ñu mettre en quarantaine rek ñoo ëpp ñu nekk sous traitement xam nga ma la kon affaire bi beneen affaire lay doon léegi nag état bi ci boppam xam na bu jëlee benn affaire teg ko quoi dem ba nar delluwaat ginnaaw si affaire yooyu noonu mais daf ko war a jël étape par étape parce que tey jii mesure boo mënti jël effet wu effet wu mesure bi nga jël mënoo ko xam pendant quinze jours par exemple tey si si par rapport ak décision yi mu jël li mu jékki-jékki rek bàyyee loolu lépp loolu dafa am procédure boo xamante ne moom nga war a jël quoi par exemple tey si jumaa yi comprendre nga xam nga tey jumaa yi mun nañ ñëw ne dañuy tijji jumaa yi mais kuy ñëw julli si jumaa yi da ngay indi indi sa si jaada bopp da ngay raxasu da ngay sol masque da ngay respect da ngay respecté distance yi comprendre nga ba pare ñu am benn nombre boo xamante ne moom la ñuy jël xam nga boobu féetee boobu comprendre nga marché yi day tijji de telle heure jusqu'à telle heure mais par exemple man pour man li gën a insensé si li mu jël si décision yi couvre-feu bi vingt heures xam nga man pour man loolu amul sens quoi. baaji bi comme yow comme li nga wax noonu man su dee su ma la ñëwee di la fekk si say idée comprendre nga man boo xoolee décision yi nga xamante ne Macky Sall moom la jël comme li nga wax ne dafa war a jël décision yi étape par étape mais boo xoolee pratiquement les décision moom da ko jël étape par étape ah parce que nekkul dafa ñëw rek dindi état d'urgence bi de façon définitive quoi parce que boo xoolee étape la jël lan la dindi yan mesures yoo xamante ne Macky Sall moom la jëloon mu dindi ko isient déggum la parce que il comme sànq li may wax hélas hélas hélas sànq maa ngi ko koy maa ngi ko koy wax gis nga il faut apprendre à avec le virus loolu noonu ay ay affaire la yoo xam ay comportement yoo xamante ne ce sont des comportements personnels te nit ku nekk nit ku nekk parce que ku fi nekk képp koo xamante ne tu es un sénégalais yow demoon nga ba benn instant boo xamante ne da xamante ne lii nii nii nii yow yow da nga doon da nga doon sax pour vivre da ngay dem ba xam ne ni instant yi situation fu mu toll nii xam nga foog nga am liberté foog nga génn pour pour mun a pour mun a dund yenn dund yi mais en ce qui concerne euh, li ma li ma la restriction yi Macky Sall comme li ma la wax sànq dafa jël décision yi dafa jël décision yi par étape restriction yi par étape par étape la ko jëlee xam nga la la dindi wàllum ouverture école bi ouverture jumaa yi ak yokk couvre bi mais boo xoolee li mu yokk couvre bi de 5 heures du à 21 heures loolu parce que mun a ne da ngay ci jumaa yi. comprendre nga jumaa yi seen seen heure de prière bi bu bu ci mujj vingt une heures lay jeex comprendre nga beneen bi si bi si njëkk say si cinq heures trente lay lay lay lay commencé donc da ngay xool àndul ak six heures du matin euh, comme ni ñu ko jëlee woon vingt ba six heures du matin mënoo si julli fajar ak jee donc boo xoolee après mûre réflexion da ngay xamante ne donc yoon la ouverture bi boo ko boo boo demee ba nga xamante ne da ngay ubbi jumaa yi la nga yi nga xamante ne gars dañu mën a les cinq prières isin ce que mais en ce qui concerne les mosquées mosquées yi dañ leen ñëw andil leen ay mesures ñun bii passé ba ñuy aar loolu lañ doon wax képp koo xamante ne mun nga tijji sa jumaa Macky dafa war a jël décision ibbi jumaa yi bu ibbee jumaa yi mu teg ay barrières a teg ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne ni jumaa bu nekk daka siy respecté bu ko respecté wu mu tëj loolu lañ ci doon wax ñun ñëpp bii isi ay déggum la yàlla def na ni isi ay déggum la loolu noonu ñu bëggoon suñu mbébét moom respecté na ko donc léegi nag comme li ñu doon wax jumaa boo xamante ne ni parce que décision boobu noonu ñi ko approuvé bëriwul am na ay ay ay xalif général comme xalif général des Tidianes ay euh, chrétiens yi ñoom seen seen église yi ñoom ñëpp ils ont pris la décision de fermer de continuer à fermer le le le lieu de culte. léegi lii ma xam la laa wax xam man man foofu la laa wax xam nga xam nga Macky Sall moom laa wax xam nga xam nga xeex balaa moo neex quoi nga jàppale ñëpp. xam nga yaa ngi koy wax dafa am ñi nga xamante ne peut dañoo am problème ni ñuy dundee wala genre il faut il fallait que mu libéré leen mais am na ne bàyyi ñu leen ba léegi te ñooñu si population lañu bokk ñu ngi jooy boobu léegi yow dèjà xeet korité mi ngi ñëw am na ñi nga xamante ne ñu ngi fii Dakar ñu ngi fii Dakar dañoo bëgg génn voilà même a éclaircir pour wax la ni mesures par état par état lañ koy jëlee hmm. gis nga restriction fermeture des des des des frontières inter urbaines yii nii isient dégg la ba léegi ça continue parce que xam na ni loolu buñ ko bàyyee décision boobu noonu buñ ko lever isient déggul la propagande virus bi mun na gën a bëri loolu moo tax restriction moo tax ma ne la étape sànq étape par étape le président de la république di ko lever mais Moussa loolu décision boobu Macky Sall bu ko jëloon ñun c'est inadmissible. mais jël na ko. jëlu ko de. si xam nga non non non jëlu ko jëlu ko ko. daa ma yëg lan la wax lan dañoo dañoo ngay dem bind autorisation. ñi nga xamante ne ni dañoo war a dem jàngi. waaw wala a dem béy waaw. waaw dem sa sa jabar Korité ji exemple ngay liggéey fii non non non dañuy waxtaan non dafa nag baa ji am na ñoo xamante baaj baa ji am am na ñoo xamante ne dëkkuñu fii dañoo ñëw fi pour job si boo fi joobee ba fet jot da ngay dem sa njaboot ba ba ko fa amee ba léegi ñibbi ñu seen kër état état d'urgence du moins ba mu fi amee ba léegi ñibbi ñu seen kër. ñu ngi mais non non dama nag non man néew ma wér da ngeen di dégg da ngay dégg da ngay dégg waaw bàyyi ma wax bàyyi ma wax ba sol bu bëree sawaay bàyyi ma yeggal xam nga tey boo taxawee nga ne ku mënti kii ku ku war a voyagé da ngay dem ñu bindal la da ngay dem foofu xam la ñu saytu la yaa ma dégg xam la nga dem bind nga dem benn kii bu tax nga voyagé léegi am na ñoo xamante ne amuñu oto amuñu dara xam la yaa ngi fi di liggéey plus de deux mois trois mois xam la war nga gis sa njaboot parce que boo liggéey sa njaboot tax ñu doon wax ne nii ah le gouvernement même le ministère de la santé bu ñu daan prononcé dañu naan communi comité bi moo ñu teg tegtal lii moo ñu wax ñu wax lii moo ñu defloo lii n'est-ce pas léegi on voit que après le discours du président comité boobu ñuy wax ñoom ñoo génn naan président bi ndogal yu mu jël ànduñu si parce que ndogal yu ñoom si leen boobu dañu gis mujjee gis ne nii si li si su su fekkee géey dégg naa bu baax li ñu wax day mujjee mel ni ni lu ko la xam bootee doomam noonu lañ ko waxee ah ok so léegi da ngay gis médecin yi ñoom ñooy naan euh, bi norme yuy jël ànduñu si te pourtant médecin yooyu noonu noonu lañ doon wax ne ni il y a peut une semaine ou deux ñoom ñooy digal lépp lu ñuy jël mais là ça dina xaw a lëndëmal xel wala. d'accord mais xam nga tamit boobu côté boobu tamit mën nañ ko justifier quoi parce que si biir médecin si boppam am na ñoo xamante ni ils étaient pour lii nii discours bi Macky Sall wax li Macky Sall def nii libéré ñëpp lu golo boo xoo xam ba bootee doomam ñoom ñoom ci position boobu lañ taxawee woon xam nga parce que. débat contradiction la quoi kii day wax lii kii wax lii kii wax lii après moom mooy tànn ne lii lii quoi décision finale bi non non non non non non non non xaaral xaaral xaaral ñu dégluwante rek d'accord naa fi ngay wax tànn day am mais ñu dégluwante non dégg naa tànn day am mais man foofu damay ñëw taxaw indiwaat su ma waxee ñu dégluwante dégluwante dama bëgg ñu gën a nekkaat ci débat bi quoi maanaam ñu gën a nekkaat ci point yi nga xamante ne moom la Macky Sall jël parce que instant yi ba léegi waxtaanuñ ci benn point comprendre la par exemple sànq Moussa mu ngi expliqué ne xam nga ñi nga xamante ne dañoo war a dem julli ji wala dañoo war a dem defi lii comprendre li la bëgg wax tey jii ñaata tabaski ñaata korité ñoom ñoo am quoi yàgg nañ dem di julli ji quoi comprendre li mu la bëgg wax tey jii dafa am yenn affaire yoo xamante ne moom mooy priorité parce que dafa am foo xamante ne dëkk bu fa tollee muy état muy population ñëpp a war a sacrifier wu comprendre li mu la bëgg wax par exemple maa ngi ko doon proposé fii man leen affaire bi nu mu demee nii au lieu que nga yokk de vingt heures à vingt et mun nga ko def comprendre la de cinq à zéro man loolu sama xalaat la quoi lu tax comme rassemblement la ñuy bañ comprendre la yow boîte bi ngay liggéeyee wala kii boîte bi muy liggéeyee mun nañ ko def double fi ñii ñuy liggéey kii bëccëg comprendre rotation bi am ñii liggéey bëccëg ñii liggéey guddi mais lépp loo gis rek problème d'organisation la quoi lu ci nekk tey décision yi Macky Sall jël nii yëpp bàyyi gars yi ñu wax apprendre à vivre avec le mën na nekk quoi mais loolu problème d'organisation la ak problème de communication te loolu lañ yàgg kaas depuis bi affaire bi amee fii ba léegi problème de communication par exemple tey ñi ngay wax ni ñoo nekk hôpital di kaas di filmer seen bopp di kaas yow bu fekkente ne da ngay seetaan sensibilisation coronavirus la lañu lay wax boo sentiree sa yaram di tàng wala sa put bi di métti wala ngay sëqat affaire yooyu yooyu lañ lay wax xam ne la wootal numéro vert kërëb kërëb jàppal bàyyi si biir communication bi amul kenn kuñ wax ne yow coronavirus bi mun na laa jot jot nga wàllu ko ay nit te du wane benn signe kon nit koo xamante ne moom santirul dara si moom dara méttiwu ko nga jékki-jékki rek jël ko yóbbu ko hôpital ne ko da korona coronavirus di ko jam ay ay ay ay affaire même waa jooju yàgg dégg ne tuwaab yi ñu ngi waaju dugal fii ay vaccin yoo xamante ne baaxul kërëb kërëb jàppal bàyyi kooku bu mu nee daw day daw. comprendre mu la loolu yëpp problème de communication la ñun ñëpp Sénégal bu nekkee Sénégal ba léegi ñaari affaire yooyu ñoo am problème de communication ak problème d'organisation xam nga ni yaa nii ma la wax sànq xam nga ma ne dañoo jël mesure même pas une ci marché yi ñu ko xam nga maanaam discours Macky Sall moo amul wax ma discours am moo amul communication bu doy non xam nga man problème bi non bàyyi ma du ma la bàyyi yow yaa may bàyyi fi mu toll nii xam nga parce que benn affaire am quoi xam nga bu ñuy xool bu ñu xool affaire bi ba mu feebaree ba mu feebar ba mu amee même bu si opposant bi mu leen woowee premier jour bi premier jour ba mu leen woowee gars yi ñëw mu recevoir ku nekk la gëj a wax ak nit si ñu si si loolu. xam nga te pourtant bañ ne état d'urgence ku nekk da nga si am wàll boo si war a féetee xam nga même bi si biir gouvernement bi soo xoolee ni ñuy soo xoolee ni ñuy demee. am la moo tax tout récemment Moussa Seydi ba mu demee Ziguinchor mu tourné ne ne Ziguinchor lii lii lii gars yi génn di àll de ñu war a woo waxtaan ak parce que communication bu am seen biir amul te am na fi nga xam ne bu ñu fa yeggee am na fi nga xam ne bu ñu fa yeggee surtout fii fu Sénégal tolloon noonu communication moo waroon ci am moo tax ma ne xeex bi dès ko communication bu communication boo boo boo waroon am bu ko am bu ko amoon dëggantaan njaay kon duñu yegg si fii duñu yegg si fii mais problème bi mooy dañoo amul benn communication ñoom day maanaam moom day def day def selon xelam lu mu ko may léegi moo tax chaque jour si tooxoo duna li ñuy dugg dañuy dugg si toxu dem ba xam ne dugg na nag mu jéem a génnaat des fois nag léegi benn chance moo am mën nga am chance nga rattrapé ko mën nga am chance mu gën a garaaw mais mais mais instant yi baa ma yëgal sëgam instant yi nii sëgam instant yi la affaire yi moom ñëpp xam nañu cóol ndax problème mooy xam nga nañ dund ak virus bi mooy wan ni cóol na non non non même tuuti même tuuti même tuuti non non non parce que non non même tuuti ba am ba am yëg ba ba bañ ba amul sax angle parce que parce que man ban angle laa ko jël man ban angle laa ko jël man ban angle laa ko jël man ban angle laa ko jël man ban angle laa ko jël ban angle laa ko jël muy mënatu ba ci dara moom moom mënatu si dara quoi. non non non si. xoolal man man Moussa boo waxee loolu noonu man xam nga man affaire bi daf may jaaxal est-ce que comprendre nga. boo xoolee nga ne Macky Sall moom décision bi nga xamante ne moom la jël moom mooy dund leen seen dund ku dee baax na donc après man je me pose la question de savoir est-ce que si réellement isient déggum la Macky Sall moom plan bu muy jéem a aborder les Sénégalais est-ce que Sénégalais yi ñoom comprendre nañ loolu parce que yéen xoola début walan xoolee début ba léegi bu ñuy waxtaan damay naan leen Macky Sall daf ñu war a confiner ñun ñëpp tëj isient déggum la yéen yéen nekkoon les les les défendeurs de de yéen yéen vous êtes les les opposants de ça. comprendre nga voilà yéen ak El Hadj. ay déggum la donc Macky bu ñu ñëwoon. instant yi déggum la ñu ne ñun dañuy confiné comme ni ñu confiné tubaab yi comme instant yi nii comme démb le 11 mai bi Macky Sall ba doon jël déclaration di def discours am mu jékki-jékki rek génn na Sénégalais instant yi déggum la situation bi dem na ba nga xamante ne ñun mënatuñ ko maîtriser ku nekk dañuy tëj seen kër dañ leen di confiné pendant deux mois wala pendant mois instant yi déggum la donc dans ce cas. yéen ñu pendant 15 jours wala pendant un mois wala pendant lu mu munti doon di si ay déglum la donc dans ce cas ñun en tant que sénégalais nan la ñuy interpréter cette cette décision. dañuy xamante ne ni dañuy supposition. supposition lañ nekk defe naa ni ñu wax économie. moom laa leen di wax nag war dama nekk. dañuy nekk supposition euh, non te alors que ay fee ñu ngi taxaw di ñu mbéj dañu wax ci fee yi. déedéet déedéet damay ñëw foofu de man damay dama lay wax gis nga gis nga il faut il faut partir du général dama ne la gis nga comme par exemple bu jëloon décision boobu noonu essient yi déggum la dañuy dem ba nga xamante ne yéen sénégalais yéen a doon wax que ne ñun sénégalais en tant que ñun mënuñu dund loolu parce que parce que individualisme ñun sénégalais xamul loolu essient yi dégg la loolu France la am kon ñun mënuñu dund loolu Macky Sall décision yi nga xamante ne da ko war a da ko jël nii essient yi déggum la da ko war a da ko war a da ko war a wàññi parce que instant yi sénégalais yi dundatuñu la moo tax sénégalais dundatuñu Macky Sall dafa war a wàññi kii yi is naa déglu donc yéen yéen en tant que en tan que en tant que en tant que citoyen vous incitez le président de la république à à à à prendre des décisions yoo xamante ne is naa déglu la na nañu bàyyi ñu exposé ñun nañu bàyyi ñu dund avec avec avec le virus moom moo ñu gënal tëju bi. mais ñun population sénégalais yëpp yëpp yëpp secteur bu nekk ñoom ñoo appelé le président de la république à ce qu'il sale comme li nga wax rek li nga wax rek li nga wax dëgg la ñun ñoo nekkoon les partisans yoo xamante ne dañoo bëggoon gars yi sans waaye ñu libéré ñu un peu quoi ñu mën a am suñu face à notre responsabilité ñun ñoo ko waxoon 90 pour cent de la population loolu moom dëgg la moom mais c'est waaw voilà mais nag benn instant am na loo xamante ne tamit bon euh, ñun ñun ñun suñu ñun la population ñun suñu suñu bëgg-bëgg rek la ñuy wax mais li li am ak li war a mën a am ak lu war a mun a nekk c'est le président la république moom moo ko xam. moom moo moom moo jël moom moo jël décision. moom moo jël décision ne comme comme que nii la demee na demee na ba demee na ba pression bi tar na tar na boo xamante ne mooy loolu fu mu toll nii moom léegi ni mu toll jël na jël na kii bi. Euh, jox nañ jox nañ ko tàngal bi mu xam ne ne mënut a mënut a màcc tàngal bi mu delluwaat ñu tàngal bi ne comme la màcc leen tàngal bi léegi su ko defee benn instant léegi nan la def ñun nañ jéem comme nu wax ne dund dund ak feebar bi am na feebar jàngoro boo xamante ne moom day rayaate rek day ray rek mu ne ñu léegi comme que noonu la léegi nañ dund ak feebar bi waaw fu mu toll nii dañuy dund ak feebar bi ba ba août ba septembre léegi nag moom kese benn instant moom moo fi nekk bu boobaa population dootu amati dootu mën a di diriger a posé lan la population moom moo ko moo rek am na am na loo xamante ne la population moo ko mun mais mais le président de la république dafa war a war dafa war a joxe dafa war a joxe dafa war a joxe ay ay ay mesures yoo xamante ne mesure yoo xamante ne mesure xam na yu sincère yoo xamante ne dafay dafay dafay tënk lépp da xam ne ne lii nii bés bu ko jëlee ça permet de protéger tout le monde mais bés boo jëlee décision boo xamante ne ne ay la yowén nga jël affaire bi delluwaat ko population bi loolu su boobaa day loolu am day poser problème loolu rek la wax bu bu bu comme ni nga waxee bu delluwaatee population bi l'état daf ko war daf ko war daf ko war wax naa ko trois fois mu accompagne population si ah, euh, moom lay garantir sécurité de sécurité c'est le président léegi nag dama dama nag li nga yëw ne ne mu ñuy seetaan ñuy delluwaat ñu maanaam ku bu bu comment dire en ku bu golo xaw ma bootee doomam tu vois nu golo xam bootee doomam du yoon du c'est pas le rôle d'un président parce que l'état est là su fekkee ne ñun dañu naroon dem si jumaa ji dem julli feebar fa dee l'état mën nañ ko porter plainte attention la loi dafa wax lu bëri attention léegi état boobu noonu noon si jumaa yi comme sànq nu ko waxee ñun dañuy war a accompagner yooyu dem si jumaa yi mais imam bi la moo tax mënuñu ko doter ay carton wu gel la moo tax ñun mënuñu yónni euh, euh, président dafa wax ne def na commande de 10 de masques n'est-ce pas non mais euh, il y a beaucoup de choses l'État doit accompagner mais léegi problème mooy depuis corona depuis bu bu ñuy commencé wax ne l' état sa vous ba léegi gisuñu accompagnement de l' état. bi dafa perdre combat bi dès le départ xam nga loolu pour man loolu waxu dof la quoi parce que lu tax dafa may ay événement religieux yu nganda yu fi amoon am ay affaires yu bëri yu fi amoon am na yenn mesures yoo xamante ne état bi bu ko bu ko jëluloon ba léegi ñu ngi compter ay millions de cas kon mesures yi mu jëloon dès le départ c' était bien comprendre li mu la bëgg wax léegi. kan moo ko wax léegi yow benn instant feebar bi dugg na fi quoi comprendre lu mu la bëgg wax mu ngi wàll ay nit ñu ngi ciy génnee ay moyens yoo xamante ne état bi xam na ne lii nii nii nii nii nii xam nga parce que ñu ngi ko doon wax yow wax mosu ko fi wax nga ne l' état doit penser penser en long terme comprendre lu la wax xam na ne situation bi bu continuer nii mënatu ko gérer mënatul gérer économie dëkk bi léegi nag lenn moo fi sës comme comprendre la mooy nit ñi génn liggéey yi mais pas ñu génn affronter feebar bi nekk fii di ci feebar bi mais ma mais ma rek mais ma rek ma wax la ñu génn liggéey feebar bi mënu la wàll tant que jëluloo say mesure yow sa bopp yow nga conscience sa bopp di sol sa masque di raxasu bàyyi dof doflu bi parce que ñun lii lañ bëggoon état bi bàyyi ñu génn man j'étais pour lii nii pour état bi bàyyi ñu génn état bi mënuñu tëj suñu kër yi mënuñu ba affaire u denrée premier aliment denrée alimentaire yi bañ ko waxee ba léegi kenn mësul jot sa wàll te xam nañ ne état bi même denrée alimentaire yooyu mënul jox askan bi population sénégalaise mënu leen mënu leen ñëpp ñu am xam nga mu continuer di tëj suñu biir kër yi mënul nekk foog mu bàyyi ñu génn mais bu la bàyyee nga génn yow bu la bàyyee nga génn bu la bàyyee nga génn yow yaay jël say matuwaay xam na doo dof nit ñaay nga moom la bàyyi nga génn la la la bàyyi ak sa bopp dégg nga may dem tuuti am tuuti non may dem tuuti may dem tuuti may dem tuuti waaw ngeen pare may dem tuuti may dem tuuti parce que yéen a ko wax yéen a ko wax def na non non mu dem ba dindi la mesures yi kon ba am tuuti waaw dëgg la waaw dëgg la waaw dëgg la mu dindi dafa am yu mu dindi xam la dindi na xam la ba pare nee la apprendre jàngal virus bi comme am la kon bàyyi na la ak sa bopp kon bu njëkk ba moom moom moom moo doon jàngal nit ñuy dundee virus bi léegi mën na la jàngal nit ñuy dundee virus kon bàyyi na la ak sa bopp nañu wax dëgg. non mais mais dafa la mais mais nañu la. non mais mais mais mais bàyyi la ma yëgër bàyyi la ma yëgër bàyyi la ma yëgër. xam nga yow da ngaa contradictoire xam nga da nga contradictoire. apprendre à vivre avec le virus. Moussa sa boppam yow yaa contradictoire xam nga la kañ la contradictoire état bi ba mu ñëwee fii si problème transport bi yow yaa njëkk a taxaw fii di casse affaire transport ay yàpp quatre nit deux nit affaire yooyu yow yaa toog fii di ko casse comprendre la xam nga état bi kañ lañ la jàngal du waxuma sax état bi mais médecin yi si boppam kañ lañ la jàngal apprendre kañ lañ la jàngal nga dund ak virus bi mhm. mooy moment bi ñu lay wax ngay raxasu ak saabu di sol masque di respecter distance yi xam nga yooyu moom mooy yooyu mooy apprendre apprendre à à vivre avec le virus léegi nag ñun moo tax ñuy sous-entendre ne ñun ay imbécile maanaam sénégalais yi xam nga ay ay ay lañ quoi ay ay dof lañ ba de telle sorte que bu ñu la waxee génnal comme lan la xool xool dafa am dafa am ay points yu ma lay wax xam nga yow xam nga man sànq dama la wax man la état bi dès le départ la perte xeexam nga ne ma non ay ay màggal bàyyi na fi dëgg la yaa ma dégg parce que am na mesure d'accompagnement yoo xam ne bu amoon bu teeloon am. lan ngay wax ba am ba am yëg ba am yëg ba am yëg ba am yëg waaw waaw naa ko naa ko waaw naa naa ko naa ko naa ko parce que waaw mais même exemple mais exemple instant muy taxaw ne état d'urgence. xam la ne dafay génne ay denrées alimentaires bu ko joxoon gars yi gars yi toog seen kër. ba ba ba am du dox waaye ma yegale bu ma ko xeebal bu ma ko xeebal kon lii du am dégg ba ba ba ba waaw ba ma yegali ba ba ba ma yegali waaw ba léegi ba léegi bu la neexee ba ma yegali xool ba pare ba mu tourné ne carrément oto yi oto yi dañuy yëpp deux trois xam la mais ba ma ko waxee terewul croisement bi gars yi dañu ñëpp nombre di continuer di dem parce que lu tax amul benn mesure encore di yëpp nombre client xam di dem di ñëw xam la nu mu fa waroon def amul benn mesure d'accompagnement mu def au niveau de la population chaque jour mooy lu may wax rek ay ordre la di exiger dara amul benn affaire bi nga xam ne dafa tax ne population bi teel si bul def lii loolu amul de amul de au def bul def bul def bul def bul def léegi dina benn moo affaire ëpp na ko doole te même tuuti na même na même tuuti na baamu yeggee baamu yeggee. da ngay yeggali da nga ma baamu yeggali mais bu yeggali suñuy débat dañuy waxtaan ak ay nit la ñuy waxal. sooy wax mesure d'accompagnement da nga naan kii ba mu nekkee si transport lii la war a def da ngay proposé dara. boo ñëwee ci si par exemple même rek même rek même rek. mooy lan comme lan. mais loolu leerul dama ne. dama ne ba mu ñëwee accompagné mooy lan. état état kenn gënu ko xam. ay ay ceeb même même non même état état état kenn gënu ko xam transport. xam nga xam état transport. dam dañuy wax ne transporteur yi dañuy wax ne ah yow tey jii ban mesure la jox si transporteur yi ne leen loolu wàññi leen loolu wàññi leen seen client lan ban mesure la leen jox ne leen def leen lii au contraire au contraire dégg nga ba ma yëg ba ma yëg ba ma yëg ba ma yëg au contraire au contraire Sénégal am problème transport gars yi di buuxante si oto yi nga yow xoolal yow li nga moom sax muy dem dikk bu mu moom sax mu wàññi horaire yi au contraire yow nga war a yokk horaire yi war a yokk personnel yi xam la pour gars yi bañ a bañ a dankaloo di yaayu wàññi nga place yi place yi exemple fekkoon nga war a yokk heure de pour gars yi ñëpp mën dem xam la ba pare ne gars yi 8 heures yéen ñëppay yéen ñëppay ñibbi gars yi a yokk heure yi yokk nga traîner yow moom laa def xeex bi fuy métti defar xeex bi fépp wóor naa il a perdu fépp la perte fi ñuy souligner rek moo gën la foofu mu fa perte ay fee laa lay nga am nga ne ma nga dem yéen mesure ñun ñun waxuñ sax ñun on n'a pas dit mais am na yenn yoo xamante ne comme ni mu ko waxee rek ay mesures d'accompagnement dafa waroon am quoi mais mais mesures d'accompagnement yoo xamante ne yow da nga koy def mais ce n'est pas à long terme yow xam na ne xel ne moom état bi xam na ne moom feebar bi mënut a mënut a dem ak moom ba septembre mënut a jël ay mesures yoo xamante ne mën na yóbbu Sénégalais ba ba août wala septembre léegi déjà moom dafa jël problème rek jëlu mais au lieu de résoudre le problème il ne peut pas résoudre le problème mu jël problème bi delluwaat ñu ko ne lii yéen lu golo xam bootee doomu ah, mais par conséquent non par conséquent daa am yenn yoo xamante ne yenn précédent yoo xamante ne dafa am maanaam man waxoon naa fi keroog ne waroon na am nay mesures yoo xamante ne comme jaayam comme comme jënd ay dund naan a mën a mën cee jënd lu ñu bon bon suñu liggéeyee suñu amee dara ñu mën cee jënd ba feebar bi di ci di ci kii yooyu ñu ay mesures yoo xamante ne dinañu permettre ñu mën a dund pendant un bon moment ci feebar te te duñ ci am ay gaañ-gaañ yoo xamante ne am na ak ak yeneen yoo xamante ne maanaam ci wàllum transport bi wàllum transport bi tamit mooy loolu c'est que yow yaa ngi bàyyi nit ñi comme ça yow nga ne bàyyi nit ñi dem di transport affaire yooyu noonu population bi di dem di dem ak a dikk affaire yooyu noonu su ko defee yow yaa ngi nii am na zone yoo xamante ne amuñ amuñ feebar bi nga jël ñooñu da nga leen bàyyi ñu dem foofu noonu yow kan moo xam feebar benn benn enseignant boo xamante ne dafa feebar boo xamante ne dafa war a jàngal ay yoo xamante ay ay ay élèves su leen contaminé ak leneen ak leneen am na yenn affaire yoo xamante ne yow nga koo régler avant balaa avant nga naan da ngay déconfiné wala da ngay confiné population bi am na yenn yoo xamante man daal lu ma jàpp man man lu ma jàpp ci président Macky Sall ci président Macky Sall am na yenn yoo xamante ne dañ laa jox nguur naam état d'urgence lañ nekk mais am na les force vives de la nation am na ñoo xamante ne ay borom xam-xam lañ ay kàngam lañ ay ténor il faut nga toog ak ñoom il ne faut pas da leen war a chercher de ñu war a nekk ci même ci opposition bi soo leen soo leen fa gisee da nga leen war a ne leen ciix xëcc leen teg leen sa wet ndaxte état d'urgence moom mu nekk ñu wax la jox la ay xalaat yoo xamante ne xalaat yu rafet la lii soo ko defee ci wàllum économie day am dara lii soo ko defee ci wàllum sécurité day am dara lii soo ko waree def ci wàllum transport day génnee dara mais bés boo jëlee nag ne yow yow sa crème bi rek ñoom les cadres les cadres la nation moom mooy yow ñu la jege boobaa soo jëlee décision mu décision yi li bu yaakaaroon amoo ko nii rek ngay mujj delloo da ngay dellu delluwaat ginnaaw su ko defee population di la xool naan naan yow waroo waxoo ñoog léegi nangam sangam loolu lañ ko wax. bon pour dafa am ñaari point yoo de ne dama bëggoon ñu ko waat mu leer parce que yéen su ma leen su ma déggee sànq comme Moussa li mu wax muy expliquer di wax que le président de la république Issa déggum la. dafay dafay naan arrêté leen arrêté leen arrêté leen arrêté leen arrêté leen arrêté leen isaan déggum la te du jël benn mesure d' accompagnement isaan déggum la yow président de la république mesure d' accompagnement président de la république depuis xeex bu mu commencé ba léegi à part ceeb yi mu wax daf la koy jox mosul taxaw si benn famille ne leen chaque fin de mois daf leen di jox un million cinq cent amul fenn donc mesure d' accompagnement yow mesure d' accompagnement yow boo taxee di wax waxu wax président de la république daf ñu war a accompagner si xeex bi mais président de la moom moom moom accom accompagner ñu si xeex bi mënul weesu isient déggum la isient déggum la yow depuis combat bi depuis feebar bi mu commencé ba léegi feebar bi mu commencé ba léegi isient déggum la ministère de la santé ministère de la santé isient déggum la képp koo xamante ne sénégalais yow da ngay xamante ne ni que ni ministère de la santé ñoom dañoo dem ba nga xamante ne ni combat bi liñ ciy liñ ciy def yow da ngay dem ba nga doo ñaan sax am koo xamante ne nga xam ko mu bokk ministère de la nag gars nelawutuñu. waxuma la defuñu seen liggéey. papis waxuma la papis papis gis nga kenn waxu la seen liggéey. et léegi lan mooy problème bi. affaire. léegi yow papis yow bu ñu deful seen liggéey nga ne defuñu seen liggéey bu ñu defee seen liggéey kenn du wax def nañ seen liggéey. mais man nag j'essaie de les applaudir non non man nag loolu laa lay wax man j'essaie de les dëgg quoi xam nga lan laa ko bëgg a wax. isaan déggum la que ne de la république au au début ba ñuy wax ne moom dafa jël restriction yii nii isaan déggum la arrêté li ñuy li mu décision yi mu jëloon ba nga xamante ne ni. Euh, li mu interdit dafa bëri bu muy jël décision boobu noonu boo xoolee ñun sénégalais yi on n'avait pas habitué wu ñu woon à vivre avec le virus. essayant déggul la mais virus bu mu fi duggee ak léegi presque def na fi ñaata mois. def na fi ay 4 mois. trois mois quatre mois donc sénégalais xam nañ li nga xamante ne moom mooy virus léegi da président de la république dafa dem ba xamante ne ne nu doon dundee essayé déggum la mënul continuer ta dëkk économie moo ko yor barki démb maa ngi dégg benn économiste mu naan mu ne mu ne Sénégal essayé déggum la boo xoolee xaw ma quatre-vingt vingt pour cent essayé déggum la économie Sénégal secteur informel bi moom moo ko yor te secteur informel bi instant dafa bloqué donc secteur informel bi bu continuer nii di bloqué où va le Sénégal raison pour laquelle président de la République boo xoolee discours bi dafa ne la après concertation avec des experts en lii en lii en lii en lii kon économie kon économie moo tax moo tax mu bàyyi ñu dund wax Moussa. mais li ma wax kon kon kon mais loolu c'est évident. kon wax dëgg la. parce que Macky Sall wax na ko de eh, man la ma yeggali wax. man depuis le début loolu laa leen wax. lan laa leen wax léegi ma ne liggéey yi dafa arrêté Macky dafa war a bàyyi gars yi liggéey man je parle de quoi je parle de l'économie depuis le début loolu laa leen wax. Macky Sall boo gisee lan moo tax mu andi restriction yi yëpp dafa xamante ne économie bi mu ngi sooxe ndax gars yi liggéeyatuñu sient déggum la et que le président de la république n'a amul capacité boo xamante ne day dugg ci famille bu nekk chaque fin du mois mu leen di jox cent mille raison pour laquelle gis nga décision yu mu jëloon ni yëpp mu mu ko pour gars yi nga xamante ne ku nekk ci li nga nekkoon nga continuer si nekk raison pour laquelle mu mu ne yéen chauffeurs yi yéen ñi doon yëpp lii xam nga mais mais lenn kese moom moo koy xoolal mesure tax xam nga lan moo koy accompagner xaaral ma yeggali hélas ngir yàlla may la ma yeggali hélas mais ma yeggali xoolal waa xaaral ma yeggali ba pare su ma la ba yeggalee nga yeggali ma ne la instant yi sénégalais yi instant yi déggum la bu nu buggee bu nu buggee économie bi continuer di dox Macky Sall moom il a déjà pris ses décisions instant yi déggum la sénégalais li ñu war a respecté si wàllu mesure barrière yi nañ ko respecté rek. jeex loolu la xam nga mais moom mooy affaire bi. Ablaye Mbaye man mënu ma su ko respecté wul. su ma ko respecté wul damay damay exposé wu. raison pour laquelle ku nekk bu ko jëlee. comme comme par exemple. mais jeex na non non mais mais xam nga benn yéen boo leen ñëwee yéen su ma gisee ngeen di aalu si Marie Macky moo tax mu mu mu wàññi euh, mesures yi nga xamante ni euh, jëloon na ko essayé déggul la dafa waroon continuer wala da waroon gën a yokk mais j'arrive pas à comprendre dama ne tey tey nañu waxtaan si yenn affaire nga def nga wàññi mais Moussa loolu mënul parce nañu continuer développer nañu ko

am naa mais xamul tax li nga wax pertinent euh. xamul tax mu pertinent mu pertinent si yow waaw si man leer waaw wax si man moom mu si man man xamul tax li nga wax ni mu si man coronavirus bi ni ñu ko doon déggee ni ñu ko doon déggee barki yàlla bu doon noonu la demee tey émission bi du am hmm. kon du ngeen fi nekk tey ma même noonu xaw ma si dara xaw ma si dara xaw ma si dara ni ñu ko doon déggee laa la wax hmm. c'était normal mu jël mesure yi mu jël mesure yi mu jël hmm. dem nañ ba xam ne mënatul continuer parce que bu continuer dëkk bi dina yëngu en commençant par man ci njëkk a génn ci laay bokk fii laa taxaw wax ko parce que man dama ci tegoon sama bakkan vendredi bii li ñëw moon dama décidé damay julli ji mu tijji damay julli ji mu ñàkk tijji damay julli ji comprendre li ma bëgg ak yeneen affaire ak yeneen affaire ñi nga xamante ne tey dañoo am seen maladie c'est dañoo am seen seen i moor ñu nekk bitim réew ñu war a indi seen koor yi xam nga ñoom tamit ñu ngi doon kaas kon décision yi Macky Sall jël nii si affaire yi nañ ne du lépp a baax voilà am na ñu war a jubbante te thème bi sax pour man si loolu la ñu war a njëkk wax. su waxee si secteur transport. transport mooy secteur bi nga xamante ne moo gën a moom par exemple tey moo gën a ñàkk régulier xam nga ñoo gën a ñàkk méngoo ak yoon xam nga ci secteur boo mënti jël muy secteur transport bi ñii di bëri li ñuy wax yëpp tey jii ah koo ci laaj en temps normal defal ndànk rek parce que état mooy li ma lay wax li ma lay wax ci état. Ah, taw nit ñi di dee yow da ngaa d'accord ci dee tey jii tey jii tey jii waaw waaw ah. ah. nit ñi di dee nit ñi di dee nit ñi di mu bàyyi économie mu bàyyi économie bi di dox mu ñu ngi leen di jaale seeni mbokk di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana te yërëm leen mais ñu xam ne ñu xam ne ñu xam ne ñu xam ne ñu xam benn affaire tey jii man déedéet man damay assumer ñi di ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xar leen àjjana donte benn moor la dafa ëpp mais ñun ñëpp xam nañ ne mooy li ma wax léegi-léegi nu ñu xa doon xalaatee ne coronavirus bi noonu la nar a rayee doomu aadama yi bu ko rayee woon kon ñun duñ fi toog yeneen feebar yëpp lu ñuy rey moo ëpp fukki junni yoon li coronavirus bi di rey bàyyi benn affaire laa yor benn affaire laa yor benn affaire laa yor rek non même tuuti même tuuti benn affaire bi corona bi am la coronavirus bi Sénégal balaa mu ñëw Sénégal balaa mu ñëw Sénégal Sénégal bu koy dégg en temps normal bu ñu si jëloon matuwaay kon instant yi du ñu yegg sax fii loolu ñu wax déjà non si non wax même tur ma wax ma wax ma yow dëkk yow dafa même tur même yegg dama la laaj question wax ma ban dëkk si adduna bi moo jël matuwaayam ba coronavirus dugg Russie. instant yi amul cas. chaque jour eh ay chaque jour la wax chaque jour dix mille chaque jour dix mille chaque jour lay am. Russie chaque jour dix mille lay am. waaw bu leen ñu sonal waay. virus moo mel noonu ñun xam nañ virus. xam nga da kuy wax loolu sax day mel ni yow xamoo luy virus. virus amul kenn ku mënul jël mën a jël sa matuwaay ba du fa dugg amul. yooyu ay waxu waxu kasaw kasaw la. xam nga balaa ngay egg tamit xam na tamit benn ngi monopoliser parole soo jëlee parole bi nga wax ko tamit benn instant. waaw waxal sa deux moom may man d'accord naa ci li ngeen wax de sam maanaam feebar bi dugg na ci ñun affaire yooyu mooy loolu mais man pour une raison pour une autre boo xamante ne ñun xamuñ ko peuple bi tamit xamu ko mais c' président seul moom moo ko xam ndaxte am na yenn décision xamante ne moom moo ko moom am na yenn yenn moom moo ko xam moom moo ko yore léegi information yi comme quoi que ne su ma leen déggee ni ngeen waxee mais comme quoi que ne euh, économie bi dafa war a dafa war a dox maanaam euh, secteur informel bi dafa yore moom mooy yore par exemple quatre vingt quinze pour cent de quatre vingt quinze pour Euh, dem na ba tar tar seen côté ba xamante ne feebar bi moom tamit mënu leen mënul woo mais faw ñu dund ak ñoom léegi nag par la par la suite nag léegi la la moom benn problème bu bu moom am léegi léegi ñun ñun naam ñun naam dañuy sacrifier suñu bopp maanaam suñu pa suñu parents yi nekk fii nii yoo xamante ne dañoo am ay âge yoo xamante ne avancé ñoo xamante ne ñoom suñ contaminé non dama danga may dégg quoi man ma wax sama wax ndax tam benn instant ba ngay wax dama la déggul ñoo xamante ne dañoo war dañoo génn ci biti dañoo génn ci biti contacté bi ñëw dugg ci biir waaw wàll leen ñaata parents yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ñoom ñoo nekk ci maison yi ñoo xamante ne ne am nañ cent am nañ quinze pour cent de population am na am nañ maanaam cinquante sept pour cent de la population yoo xamante ne am nañ seen parents yoo xamante ne ñu ngi ci seen dëkk bi te am nañ ay âge yoo xamante ne dañoo avancé yow soo demee ba benn instant yow sa économie jaral la ngay sacrifier ñooñu te ñooñu ñoom ñooy mi la mémoire de la population sénégalaise ñoom foofu la ñu war a sukkandiku euh, xale balaa muy xam foo foo mag xamal ko moom mu xam mais soo demee ba mag boobu noonu soo demee ba yow économie bi sa économie jaral na la nga rey ñoo ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ñoo ñoo ñu décédé loolu su boobaa day posé problème mais par conséquent nag am na leen loo xamante ne lu am mooy maanaam euh, dafa war a def mesure yi mu jël moom moo baaxul man sa économie sa économie su sa économie sa économie sa économie soo sa économie su su doxal soo buggee doxal sa sa économie am na yeneen moyens yoo xamante war nga ci mën a sukkandikoo pour doxalee sa économie mais bés boo bés boo demee ba yow yow yi nga war a maanaam maanaam la mu lax lu mu la wax naa la wax naa la économistes yu bëri wax nañu ne d'accord ñu mu jël ay ceeb daan koy distribuer su su maanaam ju joxe nu toy subventionné gars ju ko defee gars yi mun ca dund su boobaa population bi dina su a jënd ay ceeb su boobaa affaire bi dina marché bi dina mën a kii mais am na ceeb yoo xamante mu ngi rii rii de am na ay oignon boo xamante mu ngi pourrir pourquoi nga nga nga jàppale noonu ñu jël leen maanaam jox leen doole boo xamante ne nañ leen a jël loolu noonu loolu noonu di yàqu ci tool ay ay ñam bi yeeg bisaab yeeg carotte yeeg consogo di yàqu ñu jël ko tuur ko ci gars yi yombalal prix bi su ko defee gars yi bu nañ cee dugg en terme laa la wax bés bu ko defoon gën naa ne ni li ngeen wax nii sax du am su <laughs> may fàttaliku dem ñoo amoon benn dette euh, fiscale partielle de deux cent milliards bu ñu épongé woon pour euh, les entreprises n'est-ce léegi nag su fekkente ni dañuy ñëw ne ma quatre vingt quinze à quatre vingt dix huit pour cent et informel donc deux cent milliards yoon waa secteur informel du ci am dara. waaw léegi wax dama. est ce que est ce que yaa ngi gis balance bi ma lay tegal yow fi ngay waxee léegi nag foofu noonu tey jii ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu laa doon kaasal fii nii si émission bi mën na leen. par exemple tey buy jël décision bu mu munti jël. daf ci war a bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo gën a néew doole si secteur informel bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ci ngay gis ñoo xamante ne comprendre mu la bu ñu amee lu ñu añee lu ñu am lu ñu réeree maanaam kon état bi buy jël décision te ñoo ñoo gën a bari ci dëkk bi mais tey en démocratie sax sooy jël décision nan ngay jëlee décision dangay ngay xool ñi ëpp ñoom ñooy gagné loolu moo gën a yàlla te fii ñi gën a néew doole ñoo gën a bëri xam nga ma la voilà loolu la loolu la loolu mooy problème bi mais tey jii tey jii yow mënoo ne man safaru kalandoo la comprendre la ñu ne la tëj nañ la sa kër toogal sa kër bul liggéey xam nga liggéeyal de heure bii de à ah, ah, heure bii doo génn yebal deux personnes yebal trois personnes xam nga pour lan parce que da ngay daw coronavirus nga am sa jabar am say doom xam nga ñu war lekk war a naan amuñu yow yow joxuñu joxuñu la lekk joxuñu la naan nga toog sa kër rek noonu di deew xiif nga yow nga génn feebar coronavirus boobu moom moo lay gënal nga toog sa kër parce que ñaari dee moo am ñaari dee moo am dee xiif wala dee coronavirus yow yaay tànn. par exemple lu ma doon wax man dans le cadre général essayé déggum la man discours Macky Sall bi comme lu ñu ko waxee man dafa am ay points yoo xamante ne nii man point bi nga xamante ne nii euh, d'accorduma ci benn moom mooy ouverture école yi sànq comme ni ma ko waxee parce que loolu c'est insensé. loolu moom c'est insensé ouverture école nga ne da ngay tijji école yi le xam nga exposer les enfants loolu moom parce que élèves yi mën leen contrôler ci biir école mais mënoo leen contrôler en dehors des établissements parce que ñun xam nañ ku nekk lu mu dee dee dee jàngee école essayé déggum la te comme am na ku ko fi doon wax émi sunu émission sunu émission bi gis nga parents yi amuñu jot boo xamante ne ni élève bu terminal nga naan day jàngi école yow nga koy contrôler di ko jëlee di ko jëlee kër gi di ko ànd muy ñibbi yooyu je suis pas d'accord ak décision bi nga xamante ne ni moom dama koy approuver ci yi nga xamante ne ni Macky Sall jël na ko moom mooy li nga xamante ne dafa continuer à fermer les les les frontières les frontières interurbaines loolu noonu c'est une à saluer ouverture des mosquées loolu c'est une décision à saluer léegi nag lan moo ci des moom mooy képp ki nga xamante ne ni waaw jumaa nga si biir koñ parce que ñun jour boobu loolu lañ ko doon waxee gis nga jumaa yi nga xamante ne ñoo nekk si biir si gox yi les mosquées gis nga ñoom dañoo organiser wu les mosquées dañoo organisé wu raison pour laquelle nag mosquée bi nga xamante ne ni moom dem na ba xamante ne ni isient ay déggum la munul euh, yi mesures yi nga xamante ne ni gouvernement bi teg na ko fi pour gars yi tijji les les les les les mosquées moom attanu ko munu ko mu mu mu mu bañ a tijji jumaa pour ne pas explo pour la pour ne pas faire exposer la population. li nga xamante ne moom laa siy doole moom mooy comme li ma leen di wax depuis sànq ba léegi gis nga Macky Sall décision bi nga xamante ne da ko jël c'est une décision à saluer selon moi j'ai été clair selon moi lan moo tax parce que. économie Sénégal dafa demoon ba nga xamante ne malgré que bi ñun ñëpp xam nañ ni commencé woon na daanu bu baax mais boo xoolee ñun suñu secteur économie li nga xamante ne wàllum informel lu da ci yor moom mooy base économie Sénégal léegi nag boo buggee jël la population à ce que nga denc leen seen biir kër yi ñu dem ba nga xamante ne lu ñu lekk amatuñ ko a déggloo bu ko ba bu ko bu demee ba dépassé foofu noonu yaa ngi dégg euh, euh, euh, gars yi dañuy génn bu boobaa gars yi dañuy fippu raison pour la Macky Sall décision yi mu jël nii képp ki nga xamante ne ni yow population nga génn ci biti il faut se responsabiliser comment se responsabiliser premièrement moom mooy il faut d'abord respecter les mesures barrières pour pour boo nga bañ a ñëwaat ak virus bi wàll ko ñi nga xamante ne moom mooy seen waa sa waa kër d'abord sooy génn nga sol masque yow loolu buñ la ko waxee bu buñ la ko exiger wul sax yow en tant que citoyen da nga ko war a def boo génnee amul joxe loxo si liggéey bi nga nekk isin ay déggum la nga respecté ko benn façon respecté boo xamante ne isin ay déggum la tu doo am contact ak personne mais loolu c'est simple loolu su ma ko defee baaji bi def ko Moussa def ko waa ci def ko ñun ñu defandoo ko donc loolu c'est simple. may wax ni fii maa ngi félicité Sénégalais yi waaw xam nga di leen wax ni ñu ngi góor góorgóorlu si corona bi xam nga ndax tamit bu ñuy wax boobu ba léegi ñoom laay waxaat parce que ñoom ay jàmbaar lañ xam nga bu affaire bi yeggee fii man du ma ko jiñ kenn maanaam c'est grâce à ñoom parce que ñoom ñu ngi ciy liggéey liggéey bu extraordinaire xam nga téer yi ñu ngi góor góorlu xam nga ku nekk mi ngi def lu mu mën. xam la di wax tamit xam nga ñi ngi ñi ngi ñi ngi xam nga ñi ngi ñi ngi jot tamit xam nga ñi jot tamit xam nga ñi ngi jot ay bataaxal xam nga gars yi di ñu tontu xam nga di wax xam la di émission bi ñu si ñu si gars yi ñu ñu siy félicité xam la di si gis tamit ñi nga xam def lu war a jar xam la ndax tout récemment ñi ngi expliqué ne xam nga dañuy wax ne Moussa Koné xam la mi ngi génne affaire yu bëri xam nga du ko def biir Patte d'Oie xam la parce tamit loolu si la bokk xam la lu tax émission bi am loolu si la bokk pour tamit ñi xam ne dañoo am borom borom doole ñuy dimbali seen waa quartier xam la xam la parce que baat ñu ngi tourné tourné baat tamit temps yi rek jël na ay maxam xam nga ko jox waa Sacré Cœur xam nga baat la muy la muy jaas xam la ñu ngi koy félicité tam Bamba Fall tamit xam nga mi ngi def liggéey bu extraordinaire biir Médina xam la fii ku fi def dañ koy wax ku fi deful tamit dañuy ne carrément yow defoo xam la Omar Samb Diourbel mu mu ngi fay xam nga xam nga tout récemment rek xam la mu ngi fay envoyé xam ay lekk ay coob xam ay affaires yoo xamante ne yu extraordinaire biir Diourbel xam la parce fii ñun askan bi lañ fi nekkal xam nga ku fi taxaw nekkal fi askan bi Omar Samb Omar bu mooy président Sonacos xam la fii ku fi nekkal ku fi nekk askan bi incha allah bu neexee la incha allah ku fi nekk askan bi xam la dinañ taxaw ne carrément yaa ngi fi nekk askan bi ku fi nekkalul askan bi tamit dinañ taxaw ne nekkaloo fi askan xam la parce que tamit amul jour amul kenn dib dib dundi gis barki démon jaam musicien la xam la jël na jël na daane alimentaire yu bëri xam nga def ko biir Grand Yoff ku ko fi def ñu wax ku ko fi deful tamit ku déggul sa tur xamal ne defoo dara ku fi deful tous duñu la waxal tous waaw loolu ibukan mi ibukan barki démb ñaa maa mi ngi mi mi ngi sensibiliser xam nga boobu léegi xam mi ngi si faay bi xam mi ngi si xeex bi xam nga ñu ngi defee après moo ñu ko jox xam ñu ngi remercier ñëpp waaw wasalaam comme ni ko Cheikh musa waxee tout à rek dañuy delluwaat njukkal bu baax bu baax sax la population sénégalaise euh, parce que sol leen masque te joxuñu ñu masque ñu góorgóorlu sol ay masque yombul le ak euh, secteur bi nga xawante ni moom la ñuy wax informel maanaam suñu mbokk tailleur yi nga xamante ni si 200 milliards yooyu ñuy baale amuñu si dara peut-être te te ci masque yi ñuy sol di ci góorgóorlu ñoom bokk nañ ci quoi. mais aussi tamit damay indiwaat benn rappel bu ndaw ndax euh, gën di mbindeef rasulullah dafa waxoon dëkk bu yàqoo ñaar a ko yàq politique politiciens yi ak kilifa diine loolu bëgg naa ngeen bàyyiwaat ci xel bu baax ndaxte kilifa diine yi li ñu war a def ci dëkk bi nag dañu ils sont trop réservés il est temps pour eux que ñu yëg na ni kilifa diine yi ils sont pour le talibé pour la population seen li ñu war a def war nañ ko def mais bu ñu limité seen bopp loolu tamit war nañ ci waat bàyyi xel bu baax te war ci waxtaan incha allahu rabbi delloo njukkal askan bi di leen wax ne tamit xam nga boobu ba léegi ñoom jàpp nañ si quoi ñafe nañ ba affaire bi toll fii nii xam nga bon état bi tamit xam nga comme ñun tamit fii lañ toogoon quoi di wax dañu war a ibbi lii dañu war a ibbi lii comprendre nga yenn yi nga xamante ne moom d'accord nañ ceeg moom xam nga ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy félicité quoi parce que tamit xam nga gouverneur du lenn du loolu bàyyi xel sa askan quoi di déglu sa askan li nga xamante ne loolu lañ bëgg ñu doxalee ko ñu doxalee ko ñu sant yàlla bu baax a baax a baax baax si liñ ibbi jumaa yi xam nga ñun jullit yi nag laay waxal quoi parce que ñun si jullit yi am na am nañ opportunité dem julli ji ñu dañ koy wax boo waxee ñu ne l'islam dafa bëgg set l'islam moo gën a civilisé l'islam moo gën a organisé comprendre nga léegi nag des na su ñun ñu wane loolu noonu ñuy wax ñu wane ne l'islam dafa organisé ñu wane ne l'islam dafa bëgg set comprendre lu ma la bu wax ñu jéem a jaayante ñun suñu biir organisation organisé wu suñu biir même bu état bi deful dara xam nga lii suñu digganteeg yàlla la ñun du loo xamante ne dañ koy def ndax xool ci état wala xool ci dii ñun dañoo war a wane fii dañoo war a wane ñun diine lu mu ñu jaral ñun xam nga religion bi ñu bokk ñu lan la ñu jaral xam nga ñu ngi sant ñëpp tamit xam nga ñu ngi dégg commentaire yi comme que di féliciter comme ñi ko Moussa waxee xam nga ñenn ñi ñoom Sidibé ñoom Ibou Kane xam nga ñu ngi gis ñoom xam nga ak moyens néew yi nga xamante ne moom la ñu am xam nga li ñu nekk di def quoi xam nga ay ñoom Omar Samb ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi leen di ñu ngi leen di félicité bu baax a baax xam nga xam nga di kontaan ci ñoom parce que du Sénégal ñun ñoo ko bokk quoi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk xam nga di waxaat na gars yi gën a respecté raxasu yi xam nga xeex bi jeexagul xam nga mooy daal mesure barrière yëpp nañ ko gën na gars yi gën a respecté xam nga ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah seen clic yéen ñi abonné